asalaamaaleykum mbokk yi tey la ajjuma juróomi fan ci weeru tabaski ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fukki fan ak juróom benn ci weeru juillet ci atum ñaari junni ak nit ak benn juróomi fan dafa bokk ci lim yu fàtt yi kon tey ci ajjuma ji rafetul ci dara ñaanu bis bi allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd mooy kàbbar yi ci def ci fukki fan yi njëkk ci weeru tabaski xadiisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa ni na yaa ayuha nnaasu tuuboo ilallahi fa inni atuubu fi lyawmi ilayhi mi atamara marra nit ñi tuub leen dellu ca yàlla man dinaa tuub bis bu nekk dellu ci moom téeméeri yoon xadis bi muslim moo ko nettali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 jant bi dana fenk juróom-benn waxtu wu tegal ñeent fukki simili ak juróom-ñett di so fukki waxtu ak juróom-ñeent wu tegal fanweeri simili ak juróom-benn yàlla na nu yàlla nangul te nangul leen amin